mbokk internet Kéwoulo TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci seen teewaay saa su ne tey ñu amoon suñu plateau benn activiste bu tudd Simon Simon ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo ak mbokk internet Kéwoulo TV lay teewlu. asalaamaaleykum euh, internet yi euh, man maa ngi tudd Simon Pierre Diédiou euh, nekk activiste di fréquenté benn mouvement bu ñuy tuddee vision citoyenne c'est un mouvement national te basé wu si Ziguinchor. d'accord Simon léegi ma bëggoon xam lan moo waraloon teewaay bi fii ci Kéwoulo TV. Euh, teewaay bi tey dañ fi ñëwoon euh, pour wax suñu xalaat euh, si loo xamante ne moom moo actualité actuellement si Sénégal ak waxaat loo xamante ne tamit moom moo xewoon si at yi passé ñu génn d'accord Les bëggoon naa nga ñëwaatal ma tuuti ci histoire ou situation Casamance par exemple xeex yi am la guerre problème Ousmane Sonko du genre mais nga dikkal ma tout rek par rapport à ak euh, situation bi voilà tey jii nii euh, soo xoolee Casamance euh, dafa nekk zone boo xamante ne daanaka depuis 80, voire 81, 82, un quatre-vingt-deux dafa zone boo xamante zone de tension là donc euh, zone de tension boobu non mi ngi tax euh, rébellion am fa rébellion boobu non nak tax na lu bëri lo xamantene mom la population yi nagona am euh, danaka amat amuñu ko mais at yi ñu dégg at yi ñu jógee ni gis nañu loo xamante ne accalmie la te akalmi boobu noonu nag ñu ngi koy jaajëfal si ñoo xamante ne ñoom ñoo wàll yor wàllu sécurité bi pour ñu gën ko dëmmal comme ça Casamance mu retrouver au moins euh, son sourire et l'espoir pour xamante ne moom moo fa nekk. léegi espoir bobu noonu fan ngeen ko yaakaaree Simon ci kan par exemple kan mo wara a def euh, ba les Casamance se se sentent vraiment chez eux kan mo wara a def lolu selon vous. danaka la première personne bo xamantene mom moom la ñu nar interpeller si bobu espoir moy nguur gi moy l'État ñom ñoo nara def de telle sorte que les Casamance se sentent. 16 heures les Casamance ne se sentent pas exclus parce que soo xoolee sa balaa ngay yéegi Casamance da ngay da ngay dépasser beneen dëkk da ngay traverser beneen dëkk te nit dans la dans la mouvance boo xamante ne nit de façon naturelle lépp lu loo xamante ne mi ngi xew feneen rek day ne comme que c'est l'autre bàyyi leen ñu ñu en tout cas dal bàyyi leen ñuy souffrir fii ak yëf dalu la wala jegew la do ci bëgg def euh, benn jéego bo xamante pour ñoñu mëna am jamm léegi espoir bobu non nak ñu ngi koy yaakaaree si euh Macky Sall actuellement danaka mom la Yalla def mu mu yor réew mi actuellement yaakar bi yëpp si mom lañ ko teg mu def ay jéego yoo xamante ay jéego yu wóor la loo xamante day ñëw rek poudre ñii ñi xamal ñi non lii laa bëgg a def alors que au fond de lui neewul di ko bëgg a def euh, réellement. d' accord sans transition Simon dama bëgg nga ñëwal ma ci histoire par exemple Boffa Bayotte

soo xoolee suñu première réaction bu théorie bi amee mooy bu ñu reyee 14 personnes yi loo xamante ne ñëpp a koy ñaawlu parce que rey mom moom euh, daganul euh, be pare tamit comme on est des croyants dañu japp ni lolu baaxul mais bu yefi amé tak euh, ñun suñu kii suñu coordonnateur national en l'occurrence Maya Diop Sané mang koy nuy de passage euh, def na déclaration si ay télé yu bëri ay seenu rajo yu bëri tamit pour xamal leen ni il faut pas ñuy teel a yuuxu ne ñii ñoo ko def ñii ñoo ko def ñii ñoo ko def nañu def ndànk ñu ut exactement les vrais coupables depuis boobu ba léegi bu ñu jàppee pratiquement soo xoolee à peine euh, vingt cinq personnes la ñu téye voire vingt six mu am benn vieux boo xamante ne kooku mag la mi ngi amoon quatre vingt ans ñun ñu ñëw jàpp ko bokkal ko si yëf yi ne yéen yéen a def jéeye te soo xoolee village bi ñun sax loolu sax dañ koy pourquoi ils ont fait le choix de ce village là Toubacouta te soo xoolee aux alentours tuerie bi fu mu si àll boofu bayot boobu noonu am ay dëkk yu pourquoi ñu Toubacouta ak bi à peine 11 kilomètres km. je vois très mal ay nit du dox 11 kilomètres def ben ki bu mel noonu te heure ñu waxoon non c'était aux environs de 14 heures diganté bob non donc nit mënul dox 14 km, def lu muy defi non def ba mu nara ñibi ci sans pour autant mu am ñukoy gis aux alentours te ñu ngi rappelé ni si biir village boobu noonu euh, Toubacouta am amna ben camp euh, cantonnement militaire bu fa nek donc ce serait très difficile ñooñu dem joggé Toubacouta dem ba boo fa bayot defi ji boobu non ba pare tamit ñii ñi déggoon nañu tiir donc su ñu naree ñëw beneen instant ñu dem Toubacouta képp kuy góor képp kuy yeewoo foofu Toubacouta rek ñu ramasser la dans des conditions extrêmes ñëpp xam nañu ni armée wala gendarmerie su lay ñëw jël si nu mu fay demee ñun Casamance lañu yàgg nañu teew ay ay événement yu mel noonu donc loolu dañ koy métitlu bu baax léegi su nous ñëwee nag jàpp personnes yóbbu ñuy jaalee famille pa pa bu mujjee gaañu noonu si biir kaso bi daanaka moom buñ koy yóbbu sax waxoon na leen loolu man magla amna problème sax pour dox sama cœur ba si jumaa pour dem djulli donc su ngeen ñëwé né man ma def à peine ay 6 à 7 km kilomètres jógee sor dem Toubacouta jógee at Toubacouta nara a demaat yeneen 11 km dina ma jaaxal trop bay leen ma su ngeen ma soxlé wax leen ma man danaka sax ba gejna voyager te Toubacouta soo xoolee depuis pratiquement 92 laa fa jógee te su ma fa jógee depuis 92 ba léegi naru ma mun a demaat foofu noonu donc euh, loolu noonu ñu nekk si ñun en tant que activiste ñu gis ni ñu ngi buntu xatal ñeneen ñu ngi ñu ngi ñu ngi leen di privé de leur droit le plus absolu ñu ne bàyyi ñu dem xool nan la ñu munee apporter suñuy suñu suñu ndimbal si boobu population. léegi soo xoolee événement yëpp mi ngi dem si ben altercation bu ñu njëkkoon a am si ben kuréel bu ñu euh, pratiquement mon naa gouvernement bi la sax parce que y avait pratiquement toutes les autorités de la région de Ziguinchor ñi dem fa ak ben groupement femme bo xamante ni peut être bëgguma ko tudd ñoom ñoo dem ñu installer ben comité de veille comité de veille bobu nek fa ñu dugal fi ay villages yu bëri pour nelen leen ne ah dee leen veille su ngeen gisee lii dee leen alerté légui première altercation bobu man ñun de si lu ñu jàpp moom moo indi prime moom moo indi lu gaay gars yi nous, avons attirer son regard sur ce village bo, parce qu'il y a pratiquement 4 condamnés. 4 condamnés, si après nous avons pratiquement, je pense, un mois, nous avons fait, si nous avons juste événement pour nous améliorer, nous avons voilà, un point de départ, nous avons dem un point de te buñ len gëlé tamit ñëpp ñun féké nañu procès bi féké nañ du premier au dernier jour dañ fay nekk be 20h des fois dañ fay nekk be 0h ñu jëgé fa féké nañu lepp luñ fa waxon dal xam ko depuis le début juste ils veulent faire taire deux personnes et ces deux personnes là peut être le temps nous a donné raison jour où avons prononcé euh, prononcer verdict Moi, René euh, René Capé un journaliste d'investigation, et euh, Omar Ampouy Bodian ñom lañu bëggona ki parce que ñeneen yépp c'était du folklore pour maquiller yëf yi daal. waaw légui yéen en tant que euh, activiste euh, yan prérogative ngeen bëgg jël par rapport à ça naka ngeen war a mën a def pour conscientiser par exemple les populations yan disposition ngeen di jël. d'accord foofu noonu village bi soo xoolee sax actuellement sax village bi mun naa ne dafa tas parce que déjà ils ont ils ont ils ont contraint des personnes pour ñu wax ni diw bokon na fa diw bokon na fa diw bokon na fa té détenu yépp ñepp ño ñoo xamante ni jàppoon nañ la ku ñëw rek benn kàddu ji lay wax dañ ma dañ ma won liste liste boobu non dañ may maltraiter dima ma dima def lu nekk né ma xam nga diw c'est évident pour mu xam ko parce que ñom bokku village bi donc so né waaw rek ñu né la kon féké na réunion bi après avec souffrance buñ ñu lay teg des fois loolu c'est humain dañ lay ben benn souffrance dila la ben pression courant ñu teg la ko di la waxal waxal waxal waxal waxal diw donc pour am espoir touti da ngay né waw de ce fait euh, douleur buñ lay teg nonu mu ko touti légui so démé dans un village pareil ñun dañ fa daan dem régulièrement di dem di organiser ay rencontre di watan parce que daanaka ay jigen rek fa nekkoon jamono yooyu noonu di dem di wax ak ñom né leen ah muñ leen jàpp leen si yalla fi euh, comme ni ñu koy waxé dégg moy moy ñëkété mom moy mooy nañu dem rek d'autant plus que on est ñun gëm nañu ni ñu ñu jàpp ni yëpp defuñu dara defuñu dara maintenant kan moo organiser boobu kii parce que ñun scénario lañ ko gis am na ñu toog fële des gens tapis à l'ombre ñu bind seen film ne voilà après ñu jox ko ay nit ñu exécuté ko soo xoolee sax daanaka dañu génnee la gendarmerie locale mu nekkoon Ziguinchor génnee leen si yëf yi ñu indi une gendarmerie venant peut-être de Dakar fii dem foofu noonu ñoom ñoo def euh, capture yooyu léegi ñun luñu bëgg wax population luñu leen yag wax moy muñ leen muñ leen muñ leen muñ leen ba yalla def euh, prononcer verdict bi le temps nous a donné encore raison fofu parce que ñun nañu ni ñi ce sont des innocents ay innocents la ñu prononcer ne leen waaw bay nañ leen nañ leen ñu sauf ñaari nit ñaari nit yooyu noonu René ak Omar Ampoy euh, à notre grande surprise parce que foogoon nañu peut-être euh, dañoo ñaawoon jot foogoon nañu ni suñu bi peut-être euh, la justice euh, dinañu décevoir positivement mais bu ñu si yëf yi nag jaaxle woon nañu. la justice dinañu décevoir positivement mais bu ñu si yëf yi nag jaaxle woon nañu. vous avez été déçu par les résultats. Légui nous euh, sommes pratiquement un mois ou deux mois après la condamnation parce que avons condamné ces deux là nous avons condamné quelqu'un qui a ne condamné, la nous c'est un chef rebelle avons condamné ko par contumace si <laughs> suñu condamné nit nous avons fait un mandat d'arrêt contre nit et je pense que si ma mémoire est bonne c'est la deuxième fois nit kooku noonu di un euh, mandat d'arrêt léegi mandat d'arrêt nga un mandat d'arrêt avec nit un mois ou deux mois après nga demaat ca Guinée bissa di signer accord de paix ñun bo mo titiyee suñu ki nak si la ñu def ben point de presse foofu sort, di attirer attention opinion nationale bi ak opinion internationale xamal leen ni depuis le début ça fait trois ans ñun ñu ngi ci dossier bo fa bayat bi lu leen ci waxoon ba euh Tamba ngi ñu jox raison dañ leen ne 70 ce sont des innocents ñii defuñu dara ngeen né dédé si su une personne condamnée ngeen dem jëlaat ko signer accord de paix ak mom yëf yi daf ñuy donc automatiquement nous signer signé accord de paix bobu Non, juste dañu libérer René Capin ak euh, Omar Ampoy Si nous défé fait une déclaration bobu automatiquement ñu introduire demande d'information pour manifester manam pour ñi marche si marche bobu non, nak ñu marche ko bëss bi mais à notre grande surprise le préfet encore nous a déçus encore comme d'habitude parce que nous avons changé changer itinéraire au dernier moment Nous avons pratiquement à 13 heures voire 14 heures nous avons eu l'autorisation. Nous autorisation bi ñaan population village ñu garder espoir ñu garder espoir surtout famille euh, René Capin et euh, ku Omar Ampoy D'accord. D'accord, damay enjamber par exemple nous ñu dem ci manifestation à Amon ba seen eh, benn mbokku Idrissa Goudiaby ñàkk ci bakkanam ban témoignage nga mën a apporter mbokku internet Kéwoulo TV lay déglu. témoignage bu ñu mën a am si loolu mooy ñun dañu defoon ñun eh, waa vision citoyenne dañu dugal dugaloon benn demande eh, pour marche balaa waa yeewi askan yi di déclarer ni ñoom dañu nar a marche. toujours c'est la même chose dañu ne ils n'ont pas assez de force de l'ordre pour encadrer la marche ñu bañal pratiquement à 72 heures bala ñom euh, yeewu askan bi di déclarer ñom seeni mars man particulièrement ma dem ak sama groupe parce que man may euh, chargé de la commission suivi et évaluation si mouvement bi ñu wër suñu itinéraire ma jël moto ñu wër dekk bi yëpp fu ñu wër dinañ fa fek nombre de police policiers yo xamantene bu jégi dayo man j'ai pris la peine de compter si position yé pratiquement compté nañu à peine ay 80 éléments j'ai mis police ñu taxaw tiens, après si nous replions, nous avons une déclaration. Nous sommes Mars, dans la quasi nous sommes une vision citoyenne. Nous sommes Mars, nous sommes débordés. Nous sommes dans la vision nous sommes en train Donc, 80 policiers, je pense que 10 sassou monde, nous sommes encadrer Mars. Nous attirer attention, nous sommes en lettre nous Nélène, d'accord pour respecter Kibi, mais liak liak li nous ñu gis comme observation 72 heures après avons yewi une marche mars Légui, ñu ne dañuy dem fekkee mars parce que dañoo gis ni daanaka ñu bëri sax dañuy ne ñun ay politiciens la ñu politiciens la ñun loolu yàgg nañ ko dégg mais soo gisee ce qui nous regroupe ñun ak euh, peut-être euh, politiciens c'est parce que on a l'objectif final là combattre ñun ay anti euh, kii ay anti impérialistes la dañoo bëggul kuy salfaane Sénégal la Sénégal mérité wul loolu léegi sur ce on se retrouve avec les opposants ñoom suñu wootee balaa ñun ñuy dem en rang dispersé d'autant plus que ñun suñu bos dañ ko teree ñoom seen bos ñu nar ko autorisé ñu dem joindre joindre seeni marche bi léegi marche bi bu mu déparé ma ñëw si marche ba départ nañu si place bu ñu ne terrain Diatir communément noonu lañ koy wooye euh, Lindiane la ñu départ bu ñu ñëwee ñëw nañu ba un certain moment ñu dajee première barrage ou policiers yi ñi waxtaan maa ngi nuyu tamit commandant bu fa nekkoon ñu watane ak mom nee leen dëkk bi mo woté dekk bi mo woté bay leen ñu ñi marche rek peut-être ils ont compris je ne sais pas ndax c'était un jeu mais en tout cas ils nous ont cédé le passage ñu dem mais buñu ñu Ben en un certain moment ñu dajaat benen barrage ou policiers yi ñu waxtaan ak ñom tamit parce que y avait tellement tellement de monde xamna naa dañoo xool xam ni suñu leen naré téré rek dina déborder ñu bay ñu ñu dem bu ñu demee nag ba di waaj a yegg nag si euh, place bu ñu ne pharmacie Néma foofu croisement la foofu la ñu dajee nag ak escadron gendarmerie bu bëri nag bu bëri léegi ce qui a fait que peut-être ñu commencé g gd kii xam naa peut-être dinañu ne ñii romb nañu policiers yi romb nañu nii non fii mënuñu fi romb parce que fii mooy peut-être ñoom mun nañ ko def seen deadline foofu la yëf yi di yem bon l'arrivée d'un camarade Guy Marius peut-être Tamet mu Tamet tamit gars yi euh, ne gendarmerie ne suñ leen foule foule bi parce que les gens commençaient à venir de partout ñu regardons sax commencé woon nañu ñëw foofu la nag jet lacrymogène commencé d'autant plus que kenn yorul xeer ñun on avait ce que ku aurait xeer dans dañ ne sëñ bi tegal parce que ñun suñu objectif final mooy de place bu rond-point Jean-Paul eh, rond-point à Sitoé bi nii jet foofu la commencé nag pëccëxoo gi nag foofu la y fi des jusqu'à un certain moment rek ñu dem nak constat bu def moy parce que ñun suñu nekké tamit suñu bi il faut des stratégies dañ comme ñom dañu bañ ku yegg feene te Ziguinchor ñun yëpp fi lañ lañ bu bi on va chercher des contournements si lañu contourner si lañu contourner yegg yegg yegg juste après ñu ne léegi bañu dem xol nan lañuy ñuy disperser gars ne comme l'objectif est atteint c'était juste de faire que l'acte soit fait si la ñuy yegg place foofu noonu euh, kii euh, non non euh, pharmacie nee xam nga tam foule amna na ñoo xamante ne ñoom moom waaw ñoom na rek légui dans cette foule là yow mëno ñëw exactement mëno ñëw légui rek nga bugg légui né gaay gars nañu bay nañu bay bien vrai on est des leaders d'opinion ñi dañuy déglu bu wax si la ñëw nak xol nan la def pour joggé fofu noonu gendarme yi tire nak yi si la commencé nak à balle réelle soo xoolee ñëpp ñoo xamoon dañ leen tirer rek fofu lañ leen tiiree gen eh, moy euh, pharmacie Néma et y a eu pratiquement 9 personnes ño xamantene bal bal balle moo balle réelle leen ki waaw si la nekkee nak après da ngay dégg sa échange entre foule bi ak parce que ñi ñi soranté wuñu à peine ay deux mètres trois mètres da ngay day tiire ñoom ñi sax da ngay dégg agent gendarmerie tiireel tiireel population foule bi di ne do tiire doo tiire échange boobu noonu. donc euh, Idrissa Goudiaby fofu la daan fofu la si ben atelier kii moniser métallique ni fofu la taxawoon à ce qu'il paraît dafa ñëwoon mais dafa daan diggante bobu non nag comme yëf yi yegg na féné ne dafa daan bëgg a ñibbi si la jàdd si atelier moniser aluminium bobu non bal bi fofu la ko la mais ku ko tiire ñep gis nañ ko parce que déjà ay angle ñom ñaar lañu ñoy taxaw di out ay angle dañuy taxaw né mu jonkoon gars yi ne ko population mi foule bi di ko ne doo dóor doo dóor peut-être lu ndaw luma xam peut-être si tir manam day day calculer effet vent bi ngelaw bi moo mu daan changer de angle angle mu dem taxaw à un certain moment mu taxaw si ben frigoriste ni si la doré si la ñi ñi dégg rey na ko rey na ko man nak si la démé nak ne leen nañ ko fop nañ ko yóbbu directement dé mom newul si yéen nañ ko yóbbu so xolé sax après pratiquement moom moi, neuf vingt personnes je pense bu ñu jot tiré mais moi, la ñu gën parce que fii lañ ko laal gars si la ñu simmiiree ñu def ko comme ça deret bi wàññee si lañ ko fob yóbbu ko hôpital régional. léegi buñ ko yóbbuwee hôpital régional le premier constat boo xamante ne médecin yi fa nekkoon def nañ da ngay xool rek nga xam ne bal, bal moko moko moo parce que ben boy bu ñu dóor si tànk bi dafa toj tibia tibia bi mu gën fëllaat feneen loolu bal rek la ko mën a def médecins il faut nekkoon yëpp constat premier constat mais comme wàllum nguur la dem ba en certain moment ñu commencé bañ prononcer aussi les mais ñun mi nekkoon ay témoins oculaires des faits wax nañ leen ko man mi di wax sax demoon naa police def na déposition gendarmerie laa bëggoon dem nak les conditions ne s'y prêtaient pas parce que dafa demoon ba un certain moment intimidation et après je me suis dit bàyyi ma préféré toi ma xaar suñ ma wooyee je le ferai de façon publique dina wo journaliste yëpp ne leen ah dañ ma convoquer pour et gendarmerie ma ngi ni di dem juste faire ça. D'accord. tey tomber tombé ak 3 euh, novembre c'est euh, convocation Ousmane Sonko pour nous entendre dans le fond ci affaire am ak euh, lan nga ci parce que waxtu wi en tant que maire de la ville de Ziguinchor tay mu wara euh, monsieur le juge lan nga ci suis. a ay ci gàttal rek. rejoindre sa décision parce que dans xoo xoolee ñun pratiquement ñun euh, man fait des tweets sur ça avant-hier balaa moom sa def discours pour ne Sénégalais pour cette fois-ci il faut pas qu'on se laisse piéger par ce régime-là parce que ñun xam nañu bu baax régime bi lu mu bëgg a indi fii est soo nekkee tamit si mbir soo nekkee si xeex tamit faa nga am stratégie des fois day baax tamit nga taxaw nga ne attends tey moom bàyyi ma bàyyi bul nekk chaque fois di lo parce que so xolé sax suñu jambar yépp yëpp yu fi nekkoon yépp dé nañu parce que lan la faute de stratégie des fois da ngay dem ba un certain moment il faut savoir arrêter nga ne bàyyi ma taxaw ma xaar xaar bob non nak dina leen dina décevoir parce que j'en suis sûr que décision bu mu génn ni parce que ñom ils s'attendaient à ce que yëf yi petit pëccëroo am après ñu ñëw diko ko yenen motif encore une fois je salue la décision bu mu en l'occurrence euh, mom Ousmane Sonko di xamal il vient de montrer aux Sénégalais aux Africains qu'il est c'est un leader c'est un leader fay déglu conseil parce que la plupart des gens mom mi sa wax dans son discours son téléphone ne cessait de sonner day sonné jusqu'à un certain moment moom mis à euh, téléphone comme ça mu euh, dans son entourage de proche sénégalais nañu comme ko am dossier bi ñun malgré le fait que nous sommes politiciens mais c'est un dossier aussi vide que ça ñuy barricader, des mobiliser ay troupes soo waxee ñu ne non non non dañuy pré euh, prévenir gis nañu la déclaration de l'autre là si benn émission euh, bu mu defoon temps yi nii di ne di menacer di ne Sonko su defee lii dinañ ko def lee dinañ ko def lee les gens sont passés à autre chose lu ñu bëggoon mooy lu may signaler mooy su fekkee ne ñoom dañoo bëggoon a camoufler affaire 45 milliards yi achat d'armes yi ñu def noonu nañu jàpp ne ñun les sénégalais avertis du ñu fàttee la su fekkente ne day bëgg a camoufler yëfu. Euh, problème Sonacos bi fële ak Modou Diagne Fara ñun né ay sénégalais avertis au moment venu dinañ ko tégar sur table pour xamal len ni li nga bëggoon on a déjoué ce plan là légui nañu djublu ci l'essentiel. merci Idrissa ñu ngi lay jaajëfal ci téway bi fi ak témoignage yi nga apporté Kéwoulo TV ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi. voilà ma ngi bëggoon a jeexal euh, si walum euh, mbir mu fa Bayotte bi René Capin ak ki ak Omar Ampoy ñu ngi leen di ne moom euh, la justice pratiquement wala moom Macky Sall intervenir def na intervention yu bëri si ay dëkk yu bëri des problèmes pareils na def intervention si ñii mu bàyyi leen parce que c'est des gens yi nga xamante ay de famille C'est une famille disloqué na tas na tas donc na leen bàyyi ñu retrouver la liberté parce que accord bu ñu jógee signé nii automatiquement buñ ko signé dañu nar a bàyyi René René Capain Bassène ak Omar Ampoy euh, Bodian légui kaaw Idrissa Bodian bi ni tamit dañu bëggone yëf yi nag parce que procureur génn na fi def déclaration bo xamante ne xamul fu ñu teg loolu noonu nañu léral yëf yi ñu punir les coupables parce que ñi ñi yor nañu les études loolu soxlawul sa nga def armée pour xamni lool loolu leen di wax moy nañu éclaircir euh, ñaari ki yooyu non dossiers non ñu vidé ko ñepp retrouver sen euh, famille et sen famille retrouver est bi encore une fois ma ngi gërëm euh, ñepp ño xamantene ñu ñi sétan à travers Kéwoulo TV moy sen bo xamantene ne seen de référence Ma ngi len di gërëm jërëjëf mbokk internet Kéwoulo TV ñi ngi len di jox dig dajé ci yenen émission Inshallah. merci